Heavyweights.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 Touba ab ndaw la at yi toll ci ñaar fukki at ak ñaar ne li tax nag mu sàkki terrain baayam bi jaay mooy daa bëggoon a njàngam ab formation bu mu waroon dem defi ca bitim réew waa nag kay booy jaay terrain bi nga xosa baay ba gannaaw bi mu amee bagam avec une bonne ci la jaaye terrain baayam dal di génn réew mi tukki dem bitim réew inscrit fo ci benn école de formation waaw waaw mu fa defee formation ba noppi na Irak ba am ay diplôme am baa toogu fa dafa dellu si Sénégal waaye bi mu ne cëpp ci réew mi rek baayam da koo indil plainte une daa koy yóbbu fa mbaxana doone benn waay déet waay góor gi déet waay maa ne góor gi daa yóbbu doomam ji di baa fa mbaxana doone benn laa wax ba mbir mi nag teere tirbinal yoon mujj naa daan doom ji di baa mi sàccoon terrain baayam jaay ko juróom benn weeru kaso yu mu warul tëdd amande ko ñetti million ak ak téeméeri junni yu mu war a rembourser baayam low baa bi déclenché na de jàngat bi nag mooy baay bu bu defoon waree fam ci doomam est-ce que doomam dina sàcc terrain ba koy jaay looloo jara laaj ndax xale bi bi mu jaayee terrain baayam yàqul xaalis bi dakaa jël dem defi ci ab formation ca bitim réew ma ne xale boobu bokkul ak xale yi sàcc seen alali baay yóbbu ko ca boîte de nuit yeeg hôtel yi ànd ñi di cakkaay waaye nag nee leen baa li ma koy digal sa alalu baay du sa alal boo koy laal war ko tàggu ba mu jox la ci ndigal moo tax mane ne jàngoro ji dal réew moo gën a graw korona la wax la xew ca guddoom pour romb na doy waar ab marchand ambulant buy wuyoo ci turu em gay moo fa jàpp ab xale bu jigéen bu ndaw bu am 10 ans dal di koy violé ëskëy xale bu jigéen boobu nee ñu mu ngi bàyyee ko ci dëkk bu ñu naan Bakki Joto nekk ci village bu nekk ci commune bu Tanaf ca département bu Goudomp xale bu jigéen boobu ñu wuyale ab jaaykatu naanaa la woon ci noonu muy jaayee naanaa nag ci la ko ëmb gay gisee di marsa ambulant bi te nee nañu ëmb gay moomu ma nga bàyyeekoo ca géejawaay nee ñu dafa iri xale bi ne ko nañu dem sama kër ma jënd naanaa yi nga yor yépp ab saay la de ëmb bi mu yóbboo xale bi ba biir këram ci la ko wiyole yàq ko yaxeet way way ki bon bi mu defee njombe ji ba noppi da doon jéem a daw dem ca dëkk buñ naan Farine nekk ca gine waaye nag loolu mujjul am tuddee ndax sunu village bi ñoo dajaloo daa di koy dàqi ba jàpp ko waaw yóbbu ko ci loxoy yoon fi mu ne mi ngi ci mari bu Samin xale bu jigéen bu ndaw bi mu yàq nag yóbbu nañ ko ca hôpital régional bu Sédhiou réew mi nag xale yu jigéen yu ndaw yi ñuy liggéeyloo ci mbedd mi ma ne war nañ ko xoolaat ndax dañ leen di exposé ci kanamu prédateurs yi te nag léegi réew mi boo seetloo da ngay dox ci mbedd mi sax ab xale bu jigéen bu ndaw koc la di la ñaan xaalis waaw xale boobu nag bu yemee ci benn prédateur fu mu jëm te léegi saay-saay si fu ne la ñuy jaar moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax la xew ca ngeer malal doy na waar ngeer malal nag ab arrondissement la bu nekk ca kër Momar Sarr ab imam moo fa dafa jàpp am ñaareelam dóor ko ay coup de poing ba gaañ ko nga ni ma détuwaay te nee nañu na xam nga lu leen booleem ba indi coow li imam daa di koy dóor buy buy bi ñuy màcc te tubaab di ko wax pain de seize non nee ñu imam bi mooy de deda mbir mi mi ngi xew semaine bi weesu imam bi daa ñëw fekk ñaareel bi ak doomam bu jigéen bi am huit ans ci biir kër gi bi mu gisee doomam bu jigéen bu ndaw bi yor buy mu laaj ñaar ñaareel bi ne ko doomam ji fu mu jëlee buy bi balaa ñaareel bee tontu xale bu ndaw bi nekk xale yu ndaw yu ratax làmmeñ yooyu dal di giitu ndayam ne baayam bi di imaam tonton ji mooma may buy bi waay waay gone gi def nga lóop def nga lóop de tonton ji moomu nag nee nañu mooy petit frère chef de famille bi <laughs> boo demee am na lu xew ci biir de bi xale bi defee loolu nag yaa ji daal di koy mere dal di jàpp xale bi ci kanamu imaam dooro dóora dóor ba xale bi bëgg a dee loolu dal di révolté imam loolu dal di révolté imam mu jàpp ñaareel bi moom it dóor ko ay kuu gaañ ko waay déet waay déet déet déet waay ñaareel bi nag bi mu xëyee dafa dem uti certificat médical am dal di plainte jëkkëram ji di imaam waay déet waay soxna si déet ba fi mu ne yoon mujj na koo teg loxo donte imaam ci kanamu yoon rëccu na waaye mujj nañ koo defeere ay waay ay waay may laaj nag doom ji ñaareel bi jàpp wulle wulle wulli ba muy bëgg a dee moom it bu plaintoon ndayam fu mu jëm cay mim réew moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw corona la wax bilan bi ci wàllum délinquance agression violence sexuelle Diourbel fii nii ci Sénégal ci diggante 2017 ak 2018 génn na nee nañu tribunaux yi nekk ci réew mi atte nañ 21 363 affaires ay jaarama yéen 4 754 yëpp ci wàllum drogue la muqi 3526 dossiers yi nekk ci wàllum sàcc ak jënd alalu sàcc ak wàllum association de malfaiteurs 2166 dossiers yi nekk ci wàllum omis génocide ñu koy wax blessure volontaire maanaam faagaagal dundu nit 1946 dossier yi nekk ci wàllum abus de confiance ak liñ naan fo et usage de faux wàllum njuuj njaaj 695 dossier yi nekk ci wàllum càccum njur waaw waa àll baa ngi bëgg a dee de seen jur yëpp lañ naan tumañ yeneen 565 dossier yi nekk ci wàllum sexe xam naa mooy yàktaankat yeeg ak ya ca xew waaye daal ñu ngi jaaraamaal suñu way takk der yi liggéey bi rafet na lool lool lool lool nii rek moom daal ku jàdd yoon teg leen ko ci yoon te it yoon moom ñëpp ci bokk yem mu doonoon seen xibaaru buzz dig sam samedi ci yeneen xibaaru buzz